rahmatullah waaw ah, asalaamaaleykum seen internet yu Dakar Midi gannaaw bañ leen nuyoo di leen siyaaraat kenn ku si ne sa tur ak sant te doo ñëw fii nga xam ne mooy Yoff ah, fas yéene waxtaan li nga xam ne Sénégal Cameroun gannaaw ba Sénégal doole li nga xam ne suñu mbokk mooy Gambie trois 0 tey dañuy dugg fas waxtaan ak gars yi à ah, contre Cameroun ku baax dafa mel dafa mel yaa ngi lekk de waaw ah <laughs> ku baax siyaar naa la delloo siyaar yaa ngi si jàmm sant yàlla alhamdulilah. Ah, Sénégal football ki nga xam ne mooy ah, ah, sunu mbokk sunu mbokk Gambien dóor leen 3-0 tey ñu war a football ak nga xam ne mooy Côte d'Ivoire noo gisee match waaw match bi jàll c'était un bon match ah gars yi joué nañ ko bien vrai ñu ma ñëw ma ne 1-0 deuxième mi-temps avant mi bi gars yi ñu génne yi ñëw géré match bi avant ñuy am 60 minutes Lamine Camara. dugal deuxième bii bi gars yi nekk à après troisième bii bi gars yi ñoom ñu ñu ngi équipe bu baax quoi li si des rek mooy pression bi gars yi a teg pression quoi ñu indiwaat coupe bi man gëm naa ne nation yi fa nekk moom à part à part Côte d'Ivoire te Côte d'Ivoire dafa am douzième homme boo xamante ne moo koy poussé quoi muy population mais bu doon loolu Sénégal laay jox favori numéro un footballistiquement ñoo mën gars yi quoi mais li si des mooy ñu may waaw loolu gis ne ñu ne match bi ah, dafa xaw a des li nga xam ne ci yooyu noonu nu fa demee. non gars yi peut-être xam nga Sénégal y'a 17 millions de coach nga Aliou Cissé gàcce ngaalaama lañ ko war a wax parce que ku suivre ku suivre ñun dañuy suivre football parce que boo gisee Aliou Cissé depuis mu yor équipe nationale ba léegi da xool fi mu jëlee équipe nationale fi mu ko yóbbu. su ma juumul depuis deux mille avant depuis deux mille quinze mu ngi yor équipe nationale mu ñëw dem quart de finale Cameroun bi stop mu ko finale kële éliminé ñu kële nga jël final Algérie année bi stop mu ñëw jël coupe te daanaka suñu premier sacre Aliou Cissé moo nga fi indi kon ku la daal te Afrique kon dafa doon continent moom tey les conditions sont pas favorables quoi continent bu défini sur sur le ak conditions yi ni mu bi mettre leen dans yoo xam te ne xam nañu réalité Afrique kon li si des rek ñu bàyyi suñuy joueurs ñu footballaa xel mu daal parce que bien vrai que gars mën nañu gën a baax mais ñoo leen ëpp expérience quoi équipe

contre Cameroun ah, nan nga nan la war a fóole. waaw ah, comme ni ma la ko waxee rek xam nga pour le moment daal dans une compétition même s'il y a des joueurs yoo xam ne ñoo war a jouer mais compétition dañ ci taam au changement une équipe qui gagne quoi dugal nañ am nañ trois dañ dàbbale waat ñu xool Sénégal instant dañ toll foo xamante ne nii fa France toll woon ay jamono fa lañ toll équipe de football France instant bi koo dugal baax na Sénégal fa lañ toll ku dugal baax na même ni mën na génn sax moo war évolution bi mu def te daaw ni ko daaw mu ngi woon ci championnat local fii mais cela veut dire Sénégal am na ay talent yoo xam te bi mais sur le plan footballistique ak sur le plan qualité de jeu Sénégal du taxawaa kenn ci compétition bi xanaa leen rek la am problème bu ñu dajee naari parce que ñaar dañuy ñëw tegal ñu alxatir footballu métti gars yi bàyyi te ñun xam naa ne essence suy joué dañuy demee expérience bu bëri la ñuy demee quoi. waaw ñoo leen li nga xam ne mooy keneen ah, waxtaan ak moom. dafa mel moom jour la moom. ku wax siyaar naa la. waaw man lay delloo siyaar maa ngi si jàmm waaw ah Sénégal football ak li nga xam ne mooy Gambie gagné ko te ñu war a jàkkaarloo li nga xam ne mooy Cameroun ak nan nga jàngatee match bi nga xam ne mooy match bi paase. match bi paase waaw gars yi daf leen match bu baax de daf leen match bu baax tamit di ziar di ziar sa lii nii sax. sa dëkkandoo sa dëkkandoo waaw dafa métti quoi moo tax. moo tax gars yi daf leen match bu baax. dañuy ñaan rek match bi si topp ñu naan Cameroun ñu joué comme match bi ñu joué bi bi passé xam nga ñu gagné Cameroun génne si poule première waaw waaw waaw waaw waaw classement bi classement bi baax na da ngay dund Ismaïla Sarr dugg foofu Iliman Ndiaye kase man loolu laa gisee xaw ma ak keneen lu mu gis. Hmm. waaw. mais ma yow maanaam yow su problème mooy Ismaïla Sarr lañ moo moo waroon kii ki moo war a dugg. waaw Ismaïla Sarr parce que football te siy nekk mais boo si nekkul da lay génne da lay génne dugal ki si nekk nga comprendre. parce que Ismaïla Sarr boo seetloo saa yu toll sax nekku si day xaar banc te Iliman moo ëpp lu joué foofu noonu léegi ñu Iliman Ndiaye bi passe mu duggee répondre na ñëw na def na passe décisif de si temps si benn temps bu ndaw teggi na si ñaari joueur passe gars yi dugal moo tax nag foog ñu génne Ismaïla Sarr dugal Iliman Ndiaye man loolu laa gis quoi man xaw ma nag ak keneen lu ma gis. mais eh, mais li nga xam ne classement bi nga xam ne moo joué contre Gambie sa xel dal na suy football ak li nga xam ne contre Cameroun. classement bi bon. Casamance bi bi waaw parce que échange doon ak jour am bu nekkoon sabali wér na sabali mu a cent pour cent boobaa mën nañoo jouer quatre trois trois mais échange doon sabali nekkul xam nga nekkul à cent pour cent boobaa mën nañoo jouer ñaari piston Abdou Diallo tamit en même temps di génnaal zikam di duggaale mais dafa mel ni ki nga xam mooy euh, Moussa Niakhaté dafa xaw a blessé parce que yaakaaroon na bii di ñëw mu teg Abdoulaye Seck wala mi nga xam ne euh, ki nga xam mooy Abdou Diallo mu jël ko te remplacé ko waaw loolu tamit mën na ne parce que Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck baax na Abdoulaye Seck bu mu duggee Abdoulaye Seck ma Sénégal yi mu joué day day répondre présent est que nga comprendre Abdoulaye Seck baax dafa gaañu bu nekkee njaxate tamit gaañuwul ñoo daan njaxate parce que njaxate match yi Sénégal yëpp day def day def ay ay match waaw laa gis. contre man nga yaakaar moom la ñu war a footballé. moom la war a footballé comme classement wala wala système bi war a joué. wala ndax système bi ñu contre euh, Gambie moom la ñu nar a système boo joué gagné ko waroo kaa changé boo ko changé xam nga bu defet amee gars yi mën nañoo wax li nga joué gagné ko moom mu ngi joué match bi soog après nag bu nekkee am ay difficulté match ñoo kii ñu nu ko changé man loolu gis waaw. nga wax la waaw sama xalaat <laughs> <laughs> feneen maanaam ay joueur la. waaw kay waaw ah, ñu ñëwaat fekk moom Dakar lay lekk. <laughs> waaw ku baax ah, siyaar naa la. delloo ziar sëñ waaw sama xel moo daal moo tax may lekk daxaab <coughs> waaw borom daxaab jaa nii waaw maa lay dégg ñu lay ziar uh, tey uh, li nga xam ne dañuy waxtaan li nga xam mooy coupe d'Afrique bi li nga gannaaw bañ jëlee si victoire bu am solo suñ contre suñ nag suñu dëkkandoo yi Gambie tey ñu war a jubloo li nga xam mooy contre Cameroun te ak nga jàngalee li nga xam mooy match bi waaw uh, match bi passé bon ba nañ ko si jàmm xam nga gañ nañ si jàmm quoi mais tamit je veux dire que ne Sénégal bu mu naagu xam nga parce que équipe bi mu doon balal Sénégal ak man fukki jindi yoon am na yeneen équipe yoo xamante ne ñu ngi si kanam bu ñu naagu même bu fekkente ne équipe sax mën na la dóor score basket sax yaa ngi dégg bu ñu naagu parce que ñun final kese moo ñu tax a jóg ay demi final ak quart de final yooyu noonu wax tax ñu jóg ñun li ñu ñor mooy final bu ñu mës a xeeb benn équipe bu bale fubalee euh, keroog. nañ ko footballaatee yaa ngi dégg nañ si gën a yokk waaw niñ footballee keroon nañ si gën a yokk bu ñu xeeb daal man benn équipe même équipe boo ko mënee sax ba di ko dóor ay cinquante zéro sax yow gën a sa pas gën a yokk sa jom gën a yokk sa fulla parce que bon benn yoon coupe waruñu ko mën a jël quoi Sénégal war na mën a jël fi mu toll nii kan bu ñu fa teg war nañ ko mën a jël parce que am nañ talent yooyu noonu rek dafa ris waxuma la ñi nga xam te ne ñoo nekk si biir li may wax ni ma bëgg mu dugg. lu am solo laa si wax nii gis nga euh, Afrique benn entreneur Afrique moo fi mës a jël coupe d' Afrique bo loolu lañ si bàyyi xel ay Aliou Cissé ñi ñi di ko ŋaññax nangam sangam man loolu gëwuma ko Aliou dañ ko war a gën a gën a gën a gën a jàppale xam nga di ko waxal lu baax parce que wax dëgg yàlla ah lu ñu am tey jii ni nii nii Aliou Cissé Aliou Cissé moo ñu ko def problème entraîneur man gisuma benn problème entraîneur li mu war a classé moo ngi koy classé moo ngi koy teg si yoon man boog ma gis-gis waaw man loolu laa gis quoi franchement. ñu gis ah, bi nga xam ne contre Gambie est-ce que yaakaar na moom moom la a andiwaat kii nga xam ne contre Côte euh, am na ñoo xamante ne ñu ngi naan classement bi ko war a changé waat ñun ñu ngi naan nañ ko bàyyi noonu mais man euh, tey jii man boo gañe si benn mbir maanaam booy xeex yóbbaale sa ngàndaay yëpp gañe booy xeexi jiwaat war nga mën a yóbbuwaat sa ngàndaay yooyu noonu man loolu laa gis Sénégal dafa tàmm benn affaire saa yu gëñee benn mbir changé waat classement bu demee day amaat problème man lool si yàgg naa ko seetlu Sénégal waaw loolu nag nañ ko bàyyi quoi ñu bàyyi entraîneur bi a xelam ñu def li mu war a def Sénégal jëm kanam coupe rek kaa ñu ñor nañ jël coupe ndam bi andiwaat franchement. incha ñu xoolaat euh, keneen. Ah, mbër nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay di jox sa waay bu baax a baax a baax waaw. te ñu fekk la fii nga xam mooy sa koñ sa gox muy Yoff war waxtaan li nga xam may mas Sénégal li nga xam mooy si CAN bi ah, ah, li nga xam ne contre Gambie nan nga ko jàngatee ak match bii nii jëm. waaw sant yàlla rek affaire moom loolu la amoon ñun liñ soxlaa gagné équipe baa ngi gagné gagné rek liñ soxlaa liñ soxlaa mooy ndam li ñëwaat fii ci Sénégal. loolu rek moo ñu tax a jóg lii gars yi di wax classement beex yooyu yëpp amul sens amul moom sens gagné ñun ay gagneur lañ instant yi foofu lañ toll mooy ne instant yi ñëpp a ñoo bàyyi xel mooy ne boo xoolee ñu ëpp problème si lii bi kon nag liñ soxla mooy ne suñu équipe nañuy gagné rek waaw boo xoolee poule bi ñu nekk poule bi ñu boole mooy ñëw ko ñëpp nañ ñu jigéen kon mënuñu ñoo am match bu yomb li am solo mooy ne nañ bàyyi gars yi ñu doxee seen xel ñi xam ne ay sëriñ lañ ñu gérer ñaanal ñu ñi xam ne mën nañoo encourage zone ñu encourage zone yi bañ ñoo wax ne lii la ñu war a teg wala leen la war a teg dañ bàyyi entraîneur ñoom ñu choisir seen choix ñu choisir si lu leen neex ñu def loolu waaye ñun liñ gën a mooy ne bi nay gagné rek bu ñu gagné rek ñu jël coupe bi. dafa mel ni yow sa xel dal na ci bi Aliou Cissé teg contre Gambie. waaw dal na ñun moom nañuy boo équipe bële sëpp ñu bu ñuy gagné rek classement bi day chaque jour la ko bàyyi noogu lii bon moom mooy ñu bañ a gagné buñ gagné wul dañoo changé classement bi waaye bu ñuy gagné jarul changé classement waaw ñun ndam rek ndam rek moo ñu tax a jóg kon nag am ndam waaw coupe bi lañ soxlaat mu ñëwaat fii. classement bi yaakaar nga ne mën na gañe ki nga xam mooy Cameroun. waaye bañ a gañe mu mën a dóor kadul Cameroun booy bi la ñu tegaat dóoraat tegaat classement bi dóoraat ba final. match bi tas loolu kese la jarul dara gars yi nekk sonal ay lii classement bi mu teg nii trois nga dóor de <laughs> mooy Guinée dafa nii moo xale ñun ne gañe rek la ñoo wax équipe bi nay gañe ñuy dugal. la lañ soxlaa si bal si camp bal si camp lañ si soxlaa soxlaa ñu si une deux kii bal bi nay ñëw ñu dugal ko si camp yi match bi tas loolu kese la jëratul dara coupe bi na ñëwaat mu wàccuwaat fii rek aéroport bi si Yoff ñu ñu jëlee ka jox ko ñi ñeneen mu jiyee match bi tas waaw loolu kese la. incha allah jaa jaa jaa jaajëf nañ la ku baax nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di leen sant di leen gërëm ci émission bi ngeen di def nii. di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax. da ngaa de euh, waaw kontaan nañ si torop torop torop contentement bu am doole lañ ci am ba pare ñu gis si benn affaire boo xamante ne nii daf ñu marqué torop muy équipe bi bu leen neexoon ñu ne ñun ñooy champion ñu joué waale loolu mais defuñu ko biñ ñëwee dañ teg bal bi wane liñ man wane seeni talent def le ba yàlla may ñu ndam. te loolu la ñuy ñaan mu continuer ñu am ay ndam ba jëlaat coupe bi indiwaat ko Sénégal bu soobee yàlla. nan nga gisee li nga xam moom match bi passé contre Gambie. waaw match bi passé contre Gambie moom rafetlu nañ ko torop booy ñëw nañ ak engagement dugg nañ si match bi bu baax teel a marqué xam nga teel a dugal ay bii loolu rek moo si am solo football moom loolu la collectif te wane nañ ko la fois passée football collectif lañ def kenn wanew fa affaire de personnel affaire yoolu malgré que Sadio maane newul si match bi trop trop trop mais terewul yàlla def na ñu am ndam kon wane que ne na ne ah sans Sadio maane mën nañ am ndam mais avec Sadio maane tam day tax mu gën a neex ñu ngi koy sante yàlla bu baax daal waaw. tey ah, li nga xam ne war a wala li nga xam mooy Cameroun. Mhm. yaakaar nga classement bu Aliou Cissé tegoon dig na ko tegaat bi nga xam contre Cameroun. ah am nañ ci yaakaar de mais nag loolu choix la moom choix am la am na ñu ne. mën na tourner équipe bi indi ay Nampalys Mendy affaire yooyu noonu mais man daal sama gis-gis équipe buy gagné waruñ ko changer quoi xam nga di jaajëfal Lamine Camara bu baax nag xale la mu ngi door a dugg si équipe bi mais terewul ñëw na ak grandeur indi volume de jeu boo xamante ne ni yaakaaruñu ko woon ci moom ñu ngi ko siy sant di ko gërëm di ñaan yàlla mu jëm kanam yàlla lafal ko cat ba li mu bëgg ci carrière am yëpp yàlla na ko suñu borom defaral Gana Gueye moom suñu joueur la loolu la yàlla dogal mais football moom yàlla dafa def ne bon buñ koy xool si xale lañ koy gën a séentoo te Lamine la fois passée li mu ñu won non macha allah macha allah à Lamine Camara xam nga Gana nag bon kenn du nekk équipe bi doo si duggaat parce que Everton mu ngi fay wane ay talent bu baax macha allah bien vrai que dafa blessé woon mais maanaam jour bu blessé. du da ñëw rek match rek nga départ ko ñun xam nañ football quoi mën nga ñëw à deuxième mi-temps ba mu ñëwaat amaat volume de jeu bi mu bëgg mais Lamine Camara moom ah li mu wane moom ñun doy nañu torop kon kon milieu terrain bi yaakaaroon ñu génnewaat kenn di si di si raxaat terrain bi moom man aw ma si benn sikki sàkk ñu siy génn kenn. man bu ma amoon ku ñuy dugalaat si milieu terrain bi Nampalys Mendy Nampalys Mendy moom moom. am na place am si milieu terrain bi tamit vraiment.